Toujours dans votre scandale du jour de ce 19 décembre 2023 sur la chaîne des grands événements s'informer juste vrai VIP People TV dama bëggoon ñu une vidéo bi nga xamante Diarate, kii di parlementaire groupe Benno Bokk yëkkati na ko muy ay kàddu yu am solo analyse bu pertinent bi nga xamante ne yaakaar naa ni commissaire Arouna Sy mook Moustapha Diakhaté bokkuñu gis-gis ci Sénégal ou bien Arunasi, Sy dafa nekkoon ci beneen Sénégal bu bokkul ak Sénégal bi ñu nekkoon doon fi dëkk ak ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko de 2021 à juin 2023 nañ déglu ji Moustapha Diakhaté dellu si waat Sonko moo ne woon l'un des principes fondamentaux chez nous c'est jamais de coalition fu mu ko waxee kañ la ko wax baal ma jàll naa mën la ko chez nous c'est jamais de coalition. bi ah bon ah, c'est important si on devait revenir à nous allier avec ceux qui sont à la base de notre engagement politique c'est-à-dire le système. finalement nous serions perdus du temps et nous serions pires que ku wax vous ne le la pas, or. Moustapha sëñ Moustapha si mu ànd Khalifa Sall ça ne pose aucun problème sëñ Moustapha si mu ànd Abdoulaye Wade ça ne pose pas parce que lu yag amna par contre gis ko mom mune won système bi jëlé ko fi moko ko tax a jóg ñu gis ko ci ànd bi ça peut permettre aux gens de poser des questions problème cohérence là, la jox mais wax nag fan la Ousmane waxee lii si on devait retomber dans les mêmes travers que nous dénonçons si on devait re revenir euh, nous allier avec ceux qui sont même à la base de notre engagement politique, mais finalement, ce sera du temps perdu et peut-être même on aura été pire que ces kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo kàddu yi nga xamante ni Moustapha Diakhaté yëkkati na ko mu jagleel ko Ousmane Sonko bi fi taxoon l'un des principes fondamentaux Arouna Sy l'un des principes fondamentaux de notre pays en est que jamais de coalition Ousmane Sonko moo ko waxoon Ousmane Sonko fan lañ ko fekk coalition yewi Askan Ousmane Sonko tënku na ak charte yu mu waxoon ci li nga bokk boo xam te ni moo bokk suñu ay principes fondamentaux bañ nañ ko ba la kër pour mu dëgër foog fondement bi dagar donc principe bu dëgër boo xamante ni moo soxal suñu réew mooy jamais de coalition journaliste bi sax si boppam dem na ba naan fan la koy waxee alors que journaliste bi moom waroon na xam fu ko Sonko waxee parce que fii la ko fekk bu mu koy wax mais pour vous dire que ren hypocrisie ak malhonnêteté bu am ci yenn maison de presse yi ci saa si ñu tegal ko ko Ousmane Sonko di wax làmmiñam suñuy nopp ñuy dégg tungu ne du est ñi Natal, bàyyi leen dof-dof lu bi bàyyi leen seen xel yi ngay foyé faire hypocrisie intellectuelle suñuy wax tay kan mo dàq fen histoire politique sénégalais je crois qu'on va citer le nom de Ousmane Sonko parce que tout ce qu'il nous a vendu du début à la fin de vos contradictoires par rapport à ay propos et le Sénégal n'a pas besoin d'un président menteur d'un président qui ne tient pas à ses paroles nit de balaa nga koy jàpp fonk Ousmane Sonko Amoul kàddu ku amul kàddu naka la diriger état Sénégal Nous taxaw le la père de la nation Quand nous père la nation sénégalaise le plus grand menteur de l'histoire politique du Sénégal donc je crois qu'il faut qu'on ait raison garder savoir que Ousmane Sonko est le plus grand menteur du Sénégal il nous a vendu que des mensonges et ces mensonges ont été contradits par lui-même xamante ni li mu ñu jaayoon ci projet dafa dëppoo ak li nga xamante ni moom la jëfee à la au finish loolu tey moo ko jural fu mu tëdd mu tëdd fa commissaire Arouna la prochaine fois avant de parler sur Ousmane Sonko. demal nga gëstu ji Ousmane Sonko gëstu ji ay discours am gëstu ji ay propos am nga méngale ko ci propos yi nga xamante ni ba muy tàmbali politique di dugg di am député prix forest ak tey bi mu sàkkoo pour dem présidentielle 2024 yan propos la yëkkati est-ce que andana wala àndul nit nag. munoo wàccu tey ba pare ëllëg ak ci biir nga jëlaat sa wàccu daal di koy lekk en tout cas muy ay kàddu yi nga xamante ni Moustapha Diakhaté ko jagleel ko Ousmane Sonko tungu ne du teew ñi nataal vidéo bi accompagné ko preuve à l'appui donc je crois que Arouna Sy déggul li